assalamualaikum warahmatullah. li luñu lu la ci denkan bi nga xam mom la cheikhul khadim radiallahu anhu dénkoon njaboot gi bi mi dem ci geej gi ci tënk dana len kep ku ñew ci yeen di len di soxla te ngeen man ca dara bu len ko neenal alal ji len seen borom wërsëgale na ngeen koy def ci seenu njabot ak ci way neew doole na ngeen di bari lu ngeen di sak sarax ak lu ngeen di ñaan sa bu seen bokkum jullit ñewé ci yeen di len di soxla lepp lu ngeen mën ci dimbali ko na ngeen ko def na ngeen xam ne ki gën ci nit ñi mooy ki dimbali julit ñi te di leen jariñ na ngeen di nëbbu seeni jëf yu baax ni ngeen di nëbbee seeni safan te lépp loo xam ne day tax ngeen sori topp yàlla na ngeen wattandiku loola lepp lo xamne da len di jeme ci ak top yalla na ngeen ci gor lepp lu ngeen man bu len bañ kenn lulul na yalla tax ngeen bañ ko waye bu len bëgg kenn nit lulul na yalla tax ngeen bëgg ko lii de su ngeen ko defé seen borom dana len gëreum te dina len sopp aduna ak li ci biiram bum leen yóbbee mukk ba ngeen di jaxasoo ak buur yi wala ñi ànd ak ñoom lépp loo xam ne am ngeen ci lu leen leer wala ngeen foog ne dana leen yóbbu ci ak mooy yàlla na ngeen wattandiku loola waaye lépp loo xam ne foog ngeen ne dana tax ngeen am ngërëmul yàlla na ngeen ca góorgóorlu lu ngeen man na ngeen di wattandiku tayal rawatina ci jëf yu baax yi te na ngeen xam ne àdduna ak li ci biiram lépp moo xam yi neexi la moo xam yu naqari yi la suñ ko méngaleeg ëllëg day melni li ci aduna du dara manam lepp lu fi nek ci lu neex buñ ko ak aljana day melni li fi du dara waye lepp lu fi nek ci ay ki tis buñ ko ak sawara yi day melni li fi ci aduna du dara ne len yeen sama ñooñ yeen sama ñooñ ma ngi len di denk, ragal yalla ma ngi len di denk ngeen top ko ci lepp lu mu len digal te bu leen mooy mukk ay ndigalam lépp lu mu leen tere it na ngeen ko wartandiku fexe leen ba seen borom bu mu leen gis mukk ci lim leen di tere waaye bu mu leen ñàkk seen mukkit ci yim leen digal na ngeen jàngal seenu njaboot seeni doom ak seeni soxna na ngeen leen jàngal li war ci ñoom ak képp koo xam ne yéen a ko yilif na ngeen leen jàngal li war ci ñoom su ngeen ko deful bu ëllëgee yomal xiyaam des na leen ko laaj. na ngeen sax ci tuub ci saa su ne ndax su ngeen ko defee da ngeen am tawféexi topp seen borom na ngeen xam ne nag defi bàkkaar day am lu muy indil ki koy def mooy gaaf gi mu koy indil mooy da koy xañ yërmande yàlla te toroxtaange mën na caa topp te bàkkaar it dana tënk nit ki tënk gi mu koy tënk nag mooy da koy tënk ba du mën a dox jëm ci topp yàlla ak jëf-jëf yu baax yi kon lii lu ñu jukkee la rek ci ndénkaan loolu nga xam ne sëriñ bi moom la dénkoon taalibe yi bi muy dem ci géej gi asalaamaaleykum wa rahmatullah dul mooy ngir tiit du bew ngir mbir lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul baalaamam